الرحيم من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري الحق عقدة من لساني يفهم قولي فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi li nga xam ne mooy sangub sang sangi dimbal bi ñu def sallallahu alayhi wa sallam ide suatu yang kita ini kementerian dasar budaya juga abdullah sih mulai siar bapa siar boleh nih kami nyonya kecil jam di dalam bayar hal di dalamnya ada bahasa bahasa yang beram kena beli saya tahu ya tahu lima orang tuan itu hamat misaro hamnya taruh bayar injarin lah taruh mana ubi miisaaru maramaayo ay xéewal ak daraja ak maqaama waaqee nag daa bari ay jagle yoo xamante ne suñu borom def na ko ci waaqee na dina maye wërsëg waaqee na dina maye ay kayit comme ku bëgg ay kayit waaqee na dina def noonu benn bu ci nekk nag dina leen ko leeralal tey fii ci sama baat tey fii te lépp xewee incha allah rabbi li commencé ci wàllu wërsëg la waaqee na ku bëgg suñu borom may la wërsëg bu yaatu. defal ay xewal ak tiraanga ay bind waqa par ay par ay lañ koy bind da ci am téré yo xamna nak nag indi 99 ay am ñu indi 96 ay waye soko dem soo ko doon jëfandikoo ci wàllu wërsëg bi nga xam mo indi 99 ay bobu neuf ngay jël soko mëna bu diko jëf da ngay juróom ñu fukki xadina ñaaw ak juróom ñeent maanaam quatre-vingt-dix-neuf xobi ci wàllu wërsëg la xob bu ne aaya par ay maanaam boo nee iza waqaxatil waaqia boobu aay la ko ci xamna tekke ne teg fee laysa li waqatiha kaasibatun nga bind tegaat beneen xob noonu koy jàppoo ba jeex na weer ko ci kar nak kenn du ko weer ci nak ba ngeen nga ko ne nak ko sunu diko jowo jooyoo parce que parfum bi ñuy waxe fifty quarante parfum bi yéen ci waaqia te tey sangoo suñu borom dana ubbi mboolem say bunti wërsëg te dana la musal ci ak ñàkk waa xëy na moom borom xam-xam ne xam nañ xam nañ ci loolu dana maye ay kayit nu muy ay kayit waa xëy ngay bind moom it bu nekk da nga def xuli allahuma malikal mulki tuutil mulki man tasha wa tanshal mulki man tasha ba ca bi xayri xisaabin nga soo ko boo amul imran bin bu ne nga dugal ca xuli allahuma malikal mulki ba bi xayri xisaabin la kooku boo ko ba mat nga def ko saafara su doy nag soo xam nga ko mën a sangoo juróom-ñaari fan kooku gaaw na ci lool lool lool lool koo xam ne da ngay wut ay kayit wala da ngay dugg ci ay mbir kooku gaaw na ci lool ci waaqe am waaw mel na ñaari nga mën bi dolli mu waaqe am na ñeent xasin kooku ci wàllu moom nag lay def maanaam nga dëgg nit moo xam sa patron mooy liggéey mu nga bëgg mu jub la moo xam da ngay bëgg nit bëgg xelam saa su ne mooy la si yow kooku da ngay kut ku la bindal wàqxa ba mu egg benn wàqxa rek lay doon waaye nag xasim goo àgg ci wàqxa da ngay ubbi ñëw nga yaatal ko mu yaatu nga def ca seen ñaari tur ba ñeent xasim yëpp mat yow bu bëgg nag yaay fare kaw saa su ne taalib mooy fare kaw mat la ci suuf kooku boo ko dee sànnee lépp loo bëgg ci jëmm jooju suñu borom dana ko yiwanaal kon waqia lu jar a bàyyi xel gi non ay mbir ma sun toogoon fii tey di ko wax yaakaar na ne duñu fi jóge waaye nak ñi ma leen ci jox ben bu ci nek bu ci waay jëfandikoo comme ni ma la ko waxee suñu borom daa ci daa ci wuyu wax sun borom wax ne abdawani astajib lak ñaan leen ma may leen sun ma woowee dal dina leen wuyu sun suñu borom daa bëgg ku koy ñaan kon nak do leen ñaan sun borom mu di leen di defalal seeni bunti wërsëg yi indi bu te tam ngeen njëkk di wut kaaraange maanaam bayra ak wërsëg boo ko doon da ngay njëkk wut kaaraange kaaraange lu am solo la ci doomu aadama nit ku wërul faatu ni mu naan naa wut bayra naa wut bayra te du wut kaaraange kon nga am loo xam ne si ne maanaam ku dal sa kaw gaañu ko dal ku dal sa kaw gaañu moom loolu moom amul sikki sàkk kon nit ku ne war na am lu mel noonu moo xam ndomba la moo xam cengat la ಬರೀತಂಗ ಮಂದಿನಾಲ್ ಅಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಿತ್ತಂಗ ಗಡ್ಡ ಬರೀತಂಗ ಬಿಯೇನ್ ಬಿಯೇನ್ ko def mom wal sa mbokk nga len may len di jëf ci mom nak su do mom ku ko ci def rek mu kep ci kaw mom koku tabat ba dalen ko liggey juroom ñeent tabat ba dalay dem waye tabat ba dal mu nak manam dang koy Ada masa dingin, masadin min hablin fi jidiha da ngay koy topé da boole ko mbott boo xamne dafa dee nga for ko def ko ci safara nga diko ko guddi boo koy joowoo nag da ngay bayyi ba fen bi loola soor sa yére kooku gënul bari sax lo koy sang ben yoon rek bax boo ko sangoo benn yoon bàyyi ba fen bi rek nga sax ñene ko ko lepp mu la way mu jéti mu këpp ci kawam waaw Abdul Khadim ko ma ko jot mom 77 la 337 66 29 ya let's saya sank tiga ini saya akan sank susansis susantit naarmeere yëpp dafa ci woote di nga jot phrase bi nag mooy whatsapp bi waaw ndax ku bëgg a seetlu wala nga bëgg asam yëpp sëriñ boo xam ne si ne yëpp téere nga asam dañ koy xam ne en même temps wàllu kaaraange dañ ciy liggéey lu bare wala ku ëmb wala jigéen di bëgg borom kër wala koo xam ne day ëmb mu yàq wala ku të ëmb yooyu yëpp dañ ciy def ay ñaan yu am solo képp koo xam ne daal woo nga ne bu ñu déggantee incha allahu rabbi jàpp nañ nag surga na sax tiis jaaxle ub sa bët yow yaa moom ba taaxal bi saaxibul asraar Abdul Xadim Gueye jëlal numéro téléphone yi ma lay waaj a jox 77 la 337 66 29 wala 76 974 44 05 lu jëm ci wàllu cat toj liggéey kaaraange tul ak li nga xam ni moo di wër wërsëg sa xel di la bëjoo jaaxle sonal na la ci liy tënk say mbir nga umu maanaam jaaxle lool ci sa ëllëg di dugg ci loo xam ne saa su nekk boo ci duggee mu të wala itam mu am ay lënc-lënc jokkool ak Abdul Xadim Guèye ci numéro téléphone yooyu ma la jox lu jëm ci seetub alxuraan listixaar seet ci téléphone jooni jooni woo ko ci 77 337 66 29 wala ci 76 974 44 05 yow mi nga xam ne tamit farul rab daf la tënk lii di seytaane lii di kort jigéen bi nga xam ne dafa nekk ci biir néegu sëy bëgg am doom mu ko wala góor bi nga xam ne tamit day lijjanti ay kayit wala ay jafe-jafe teunk ay cëram wala yu ni mel muy japp ni kat manam li ay def-def la wala yu ni mel jokkol ak mom ci numéro téléphone yoyu a gu faju rek la yow mi nga xamni tamit ala kulli al da ngay am li nga xamni modi règle douloureuse bo jokke ak mom di ci am tawfiq wala nga def ay jéego duki duki dangi dangi dem ba way marché bu bees ci mbaru Serigne Saliou ba nga laccé ki nga xamni modi abdul Khadim Gueye mané bo jokko ak mom allah tawféex ak tay si rek nga ci gis ci diwanu Touba nak ndindi la nek terminus tata numéro 2 ci arrêt xare ba boo fa egsee boo ko oowee alhamdulilah dong ngay wax Abdul Xadim Gueye jafe-jafe joo mënti am ak lu mën a lënc sa xel di jiixi jaaxa woo ko ci 77 337 66 29 wala ci 76 974 44 05 alhamdulilah dong ngay wax.